mbokk Leewtoo ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax fi ñu leen daan nuyoo tey nag ma àndaat ak taalibe Cheikh ci Thioune yàgg maar di ko ñaanal jàmm waaye tam di ñaanal mbokk internet ñuy suivre ci Leewtoo TV tey ñu ñëwaat foo xam ne miin nañu fi tàmm ngeen dañu fi gis muy fii ci arène Adrien Senghor waaye tey moom dañoo ñëw tey dara tëggul tey làmb amul dara amul gis ngeen làmb ji nu mu demee tribune yaa ngi nii vide xanaa quelques gars yi mu toogal muy waa arène Adrien Senghor den man doon koo xam ne yàgg maar moom moo yore lii di communication wu arène Adrien Senghor Pango Sémou Diouf mu moom laa lay njëkk a laaj Mamadou. waaw bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi di sant suñu ñaari waajur di wax roog nu barkinu taabor roog nu barkinu rabor roog yaa sam barkinu rabor aree fa in loolu mooy lan. rabor mooy sama xeetu baay ñoo ma jur ci seen barke lay ñaan balaa may tàmbale dara eh, nga laaj ma koo xam ne boo ma ko laajee dinaa sawar a wax ci moom muy président Ngosé mu Diouf président dafa am ay gan waaye dafa waroon a teew fii ñu ngi doon jokkoo téléphone léegi balaa ñu commencé émission bi waaye nag ginnaaw yàlla dinañ sant président di ko nuyu di nuyu secretaire général Modou Senghor di nuyu Mamadou Diouf mi nga xam ne mooy secrétaire à l'organisation di nuyu Pa Ibrahima Faye nga xam ne boo xoolee fii ci arène Adrien Senghor moo fi nekk gardien de waaye nag di nuyu waa Leewtoo TV spéciale pour waa Leewtoo TV. jërëjëf. yaay communicateur bi yaa yore micro central bi tey lamb amul. corona bee tax ana ko naka la ko arène bi di dundee ak li ko wër. waaw jërëjëf lamb amul corona moo fi ne. corona nag eh, la ma ciy wax mooy. damaa dégg ñu ne nañ ko daan waaye buñ ko daanee mën na jógaat wóorul nañ ko toroxal mu jóge fi comme dañuy xeex te xeex la xeex moom gañe bu mu jóge fi mooy lépp nañ xeex ba mu jóge fi nuñ koy dundee nag ma wax la ko mooy ñëpp toog nañ seen kër geste barrière yi nga xam ne suñu médecins yi macha allah ñu ngi koy wax ñu ngi koy digle ñun ñëpp ñu ngi koy dund muy amateur yeeg muy mbër yeeg muy promoteur yi ñu ngi koy dund ñun daal restez chez ñu ngi koy dund te loolu lañ loolu lañ wax waaw noonu lañ koy dundee pour le ndax Adrien Senghor am na buur ci làmb ji ñi nga xam ne ñoo ngi ciy bëri. Adrien Senghor waaw waaw léeg-léeg nag Adrien Senghor nag boo ko xoolee xam nga waroon nañ def chaque année bu saison bi jeexee ñu xool mbër bi nga xam ne moo ëpp lu mu jël Adrien Senghor mais loolu gaa yaa ngi ciy waxtaan. fu ne nii kan moo mën. ah saa yi na nag xam nga ren moom saison ren bi moom daa xaaba bal rek taxaw. mënuñoo wax exactement mais daaw moom daaw dañu noon général malika général Malick la ñu waxoon mbër bu gën a yaru mbër bu nga xam ne moom moo gën a discipliné ëpp lu mu fi jël moom lañu waxoon mais ren moom xam nga saison bi dañ cee dugg tuuti rek mu taxaw ndax feebar bi kon ren mënaguñ ci wax mais amoon na liñ ci doon waxtaan ak kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk arène Adrien Senghor pour chaque année ñu xool arène bi mbër bi nga xam ne moo fi ëpp lu muy jël ñu def benn fête boo xam ne yéen médias yi da ngeen di ñëw ñu waxtaan ci loolu waaye nag defaguñ ko waaye ñu ngi ci yoon bi waaw. ñu ngi ci yoon bi euh, Mamadou ndax mën nga maa fàttali tuuti ci lambi simple ñu ne mystique amul ñu ne mystique am na ndax mës nga gis foo xam ne mystique jàpp na fi nit wala yow mystique daa mos a laal waaw jërëjëf loolu dinaa ci sa war a wax ndax xam nga ñu nag mbër yi dañoo xaw a laale te boo xoolee mbër bi day sumeeki du wax waaye ñun itam dañuy taxaw ci digg géew bi yor micro ñun dong di wax ñëpp déglu kon dinañ xam dara ci mystique mystique euh, mos na ma mos naa gis dund naa ci mystique ci lutte simple bi mais boobu lamb lul seeseen la woon ñu jóge lul seeseen di ñibbi suñu dëkk ànd ak benn mbër ñu yoroon saretu fas ñu ñëw ba ci diggi dëkk bi diggi àll bi fas bi tourné ak ñun di def ay gestes waa ji ne ay bagage la te waa jooju moo waroon finalu ci élection mu wàcc di def ay affaire am di def ak ñun bu yàlla def ñu dem ba suñu kër yi ci biir loolu itam mystique mos na maa jàpp man ndax mës naa ànd ak mbër bi ñuy wax Boy Kayre sama xarit maa ngi koy nuyu au passage bu ñu préparé moo combat Modou Lo Boy Kayre maa ngi doon jàppale Boy Kayre daa mbay jaw marché Grand Yoff moom boole moom ci bu ñu nee suba la combat bi mystique jàpp na ma bu ñu xëyee sama loxo bi nii la toll. nan la la jàppee. dañoo dem ba ci guddi bi ñuy ñu ñu di ma gént di xeex bu may xeex ma dóor miir bi ma bu ma yeewoo sama loxo bi néewi ma dem ci sëriñ bi ñu doon wax Abdou Thiam njol moo ngemboon Baboy. ma dem ci moom mu ne ma waaw mu xoolal ma ne ma noono euh, bagage yi ñëwaat sa ci kaw mais dina am lu ma lay jox booy dem lamba ja mais demal mais nag xam naa ne lamba defa la lëndëm mu am yu ma jox ma jël affaire yi suuru ko deux jours la def loxo bi dem mais lamba ji dañ koo ñàkkoon ndax booy kayre Modou Lo da koo mu daanu waaw. kon dafa mel ni sa xeex bi mooy dóor mu daanu ba nga xam ne moom la kayre defoon di <laughs> Modou Lo defoon. la ma paa bi waxoon itam Abdou Thiam Ndiol mu ngi dund ba tey yaakaar naa mbër yu bari xam nañ loolu la ma waxoon jur boobu mu ne ma bagage yi ñëw wàcc ci yow mais nag lamb ji dafa lëndëm. lamb lu seeseen bi nga ne nan la demee woon bi ngeen yore charette bi. lamb lu seeseen bi nu mu jë demee woon mooy bu ñu yoree charette bi ñun dañoo jógee lul seeseen ñëw ba ci tànn bi bu ñëwee ba ci tànn bi fala fas bi di mel ni luy tiit di daw di wër ñun ba dëkk bi ñuy wax ak ñun ne ci ne ci ne ci ba newaat biir lul seeseen amul lu mu gis wala dañoo réer ñun dañoo réer fas bi di daw di tiit mais dañoo mujj ñëwaat ba biir lu seeseen waaw léegi nag ci la ñu ay gaa tegtal ñu tegaat ñu ci yoon ñu ñëw ba fi ñu ñëwoon fi fas bi doon tiitee fas bi commencé waat def lu mu doon def ne daal du jàll du jàkkaarloog suñ dëkk jàll. yéen gisu leen dara gisuñu dara mais booy bi ñu àndaloon booy boobu moo wàcc mbër la. mun nañu ne xaar leen mu del ay bagage am su del ay butéelam wis dem ci àll bi tuuti def ay bagage ñëw indi ay paftan def ko ci panneau yi. def ñu ay jox ñu affaire ñun ñu laal suñu loxo raayu ñu dem bu ñu demee ba dëkk bi ñuy wax njagamba ci armeelu lu njagamba yi fas bi taxaw foofu di rap rapi di loxo moom moo wàccaat itam ci saret bi ñun ñu toog ci kaw de mu omat fas bi bu mu omatee fas bi omat fas bi ba ñu génn dëkk bi ñu yegg dañoo dox tuuti rek ñaari pone yi peerandoo yëpp dañoo diri saret bi bu suñ dëkk booy bi ne ñu bagage yi la lamb ji la dañ ma dañ maa bëgg a jàpp te mënuñ maa jàppee noonu ci élection la booy bi jël lamb ji bu ci éleg sa yaayam daanu ci saret bu dam loolu day na waar promoteur yi ak làmb ji fii Adrien Senghor ak feebar bi am na ñi dugaloon caution am na ñi waroon tëgg jotu ñoo tëgg léegi nan la def nu mu demee waaw loolu moom li ma ci jot a wax mooy que ne ñu ngi ci programme boobu ñu ngi ci bu baax képp koo xam ne promoteur la te dugaloon na xaalisam ci arène Adrien Senghor et association arène Adrien Senghor am na lu ñu préparé ni ñu ni ñuy def ba sauver saison bi ba sauver la yow yow mii promoteur bi ba bés boobu dat boobu bu ne incha allah di nga ko teg loolu moom samay kilifa yi nga xam ne président Ngosé bu ak Modou Senghor ñu ngi ci. mais ci loolu da ngeen di delloo xaalis bi wala non loolu moom yaakaar naa ne loolu boobu delloo xaalis moom bu ñu ci bëggee yëg foog ñu dem association bi yëpp taxaw mais lu ñu jot a lu ñu ci gis dëgg bu may togg ak ñoom lu ma ci gis dëgg mooy bu soobee yàlla képp koo xam ne am nga dat mais dat boobu dafa nekk ci biir e, feebar bi bu dewee ne dañ lay delloo sa waaye nag loo bu demee ba boromam itam soxla xaalisam Adrien Senghor dafa am kees daa am niñ ko lijjantee ba lijjante ba delloo la sa xaalis mais ba ñu njëkkee wax boobu léegi daal amatuma ci lu ma leer. la ma waxee lijjante dafay mel ni xaalis ba nekkul sur place de. non xaalis bi dafa am kees xam nga xaalis moom kenn du ko denc ci poche xaalis moom daa am fi ñu koy denc foo xam ne bu ñu soxlaa éleg rek. dina am secrétaire am trésorier am président bu ñu defee réunion réunion boobu nag ñooy xool ni ñuy def bu régler seen xaalis ndax problème bu am fii ñoom dañ koy régler à l'amiable ba problème benn problème du am. problème mu des fois ñu ne euh, dafa am bii bukki bii njur bii samba bii ku waaw xam nga fu mbooloo nekk moom coow nu faa ñàkk am mais yàlla xam na ne mag wax dëgg li ma jotane ci arène bi wax dëgg fi yàlla promoteurs yi moom boo xoolee moog Adrien Senghor rek ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. waaye nag ay nit fu ñu nekk ñu bari doon mbooloo wax mënu faa ñàkk yaa ngi dégg ndax dinaa gisee nii keneen gise nii waaye loolu yëpp du problème bu soobee yàlla daal ñun ñoo bokk arène bi ñoo bokk simple bi ñoo bokk lépp jàmb rek moo ciy am. Mamadou jërëjëf euh, yàgg mar dañ fi toog ak bëgg fallu bëgg fallu di manager ci Grand Yoff mbooloo waaye tan doon nitu làmb di promoteur di fi tëgg euh, moom nag dafa muus waaye fallu ñun ñëpp a ko bëgg waaw. bu naree bëgg fallu bàyyi ñu dana metti ci ñun bëgg fallu nuyu naa la. waaw Zak maa ngi lay jaar ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di la gërëm di la sant di ñu waa Leewtoo yëpp parce que ni ñuy def noonu la quoi parce que lii mooy dundal làmb toog ba nga xam ne actuellement ñu ngi si mbas mi nga dem ñi nga xam ne dañuy surtout ñi nga xam ne dañuy bëggee Leewtoo TV comme nga nga ñëw tegal leen ko parce que da leen di delloo si parce que fi ñu nekk nii mooy Adrien Senghor te jii boo nee Adrien Senghor ku ko xoo seetaan rek. sa xel da lay dem si lu bari. parce que champion yu bari mooy loolu bari na fi quoi. comme kan ak yu bari comme ay Ngel jon comme champion yu nekk actuellement nii. ci ancien yi. si ancien yi si ancien yi Mame Ndiambane jaar na fi. dem si yàlla docteur fay bëri na fi. comprendre nga Amra Sarr bëri na fi. Joseph Sène bu Boyard bëri na fi. Babou Ndeñ bu Jilaas bëri na fi Mam Pip bu Jilaas bëri na fi. alin Sarr bu Saaxoor bëri na fi. Ngondeb bu Jilaas bëri na fi. comprendre nga Benoît Sarr bu Wellingara bëri na fi comprendre nga te ñu lay wax ñëpp dama leen seetaan fii ñu lay expliqué bi dama leen seetaan fii. ay pot la xam ay pot la woon ak Ndiaga Nosor bu liw seeseen xam nga Sidi Yaaram comprendre nga bëri na daam gàkku bu Soojaan bëri na fi. mais kan moo la ci gën a marqué. Benoît bu Wellingara. lu parce que day mbër moo xam ne du takk dara du takk dara croix am la yor rek. croix bi rek lay yor moom lay sex du takk dara du sotteekoo dara boo gisee dafa njool sew nii comme boobu ko boo gisee deux ziga rek gis nga ko zaar boobu la mais xoolal doo taxaw si kanamam parce que Serigne Touba. waaw léegi ana woon mystique kon bi mystique di jàpp yi di leen sonal. moom daal moom daal sa waay du takk dara bu croix bi rek la yor hmm. waaw aussi am na benn combat bi fi amul trois éditions hmm. fii si làmb muy Ngolde bu Jilaas ak Alioune Sarr bu Saaxoor combat boobu def na ko ñaari édition fii billaahi boo léegi kenn mënul daan sa morom ñoom ñaar aussi Raymond professeur Raymond tamit seetaan naa ko fi. professeur Raymond Diouf. waaw Raymond bu baax moom président. la sama grand la sama médecin la sama lépp la. Hmm. maa ngi koy jaar. Kora mooy cosaanu Adrien Senghor. Hmm. yàgg na. mais professeur dañ ko daanu lool daal. non professeur musul daanu musuma ko gis mu daanu xanaa si àll bi mais fii mooy daan eh, eh, bëgg Fallou xanaa da nga koo ragal rek. moom da lay seetaan mais doo ma ne mosuñu ko. non non professeur moom mosuma gis mu daanu nag franchement tombé wu ma day daan rek. ñu ngi koy nuyu bu baax. bëri fii lu bëri si fii cité lay jógee université lay jógee. période mi ngi jàng comprendre mi ngi jàng université lay jógee ñëw fii après période bi mu passé nag si la ñoom Mama Lamine dem si yàlla Sarr ñëw ñoom Yaamu Sarr bu Rëfange comprendre nga ñoom Aline Diouf bu Yarwaago ñoom euh, Malick Ngueye ñeen comprendre nga après si la génération boobu ñëw ak Fawi Felir comprendre nga si la génération ak ñoom Moussa Xaalis ñoom Moussa Ponte comprendre nga génération ba après nag si lañ soog a ñëw moo tax lamb daal séeréer dafa neex quoi cosaan la vraiment et puis lamb diir la da nga gis lamb da nga gis lamb vraiment de passage aussi maa ngi nii Ngor Ngor Semu Ngor Semu président Adrien Senghor maa ngi koy ziar bu wér kooku suñu kilifa la. Ngor Sema suñu kilifa la ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi te ànd ak si barke Seydina Muhammad bëgg fàllu lay dagg rëg-rëg loo ci wax. waaw rëg-rëg moom moom moom daf ko tarbiyu li naan mbër dugg si àll bi di comme ni mbër yi di daf ko daf daf daf ko tarbiyu ba am li mu am nii tarbiyu mu ko tarbiyu moo ko may lii de rëg-rëg tar te daf ko bëgg mais rëg-rëg demagul waaye bu ñëwaatoon fi Adrien Senghor ban mbër nga yaakaar war na ko mën a sonal gisuma ko de wax fu dëgg yàlla même général Malika mi ko daanu moo ko gisuma ko gisuma maa la gisuma ko gisuma ko de guddi yi toll ni wax fu dëgg yàlla non daf ko tarbiyu bëgg ko dratostrada bi amoon Kaffrine ñun ñoo leen yóbbu woon moo tax mbër balaa ngay xam bu dëgg nga nekk moom quelques jours moom fu huit heures jotee hmm. tëdd na. maanaam dafa am gett. dafa am gett ma ne la fu huit heures yeneen mbëri di taxawaale nii moom tëdd na bu yàgg. kon hmm. nga moo tax dafa am gett. Eh, waaw de passage nag maa koy nuyu nag di ko jaar moom it. jërëjëf bëgg fàllu hmm. yàgg maar. te beneen bi mooy sax. Ah, doguma la mbas bi fi nekk nii ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla jëlee si barke Seydina Mouhamed si barke Sëñ Fàllu mais ñun nit ñoo ko fi mun jëlee. masque yi ñu wax lépp lu waa kër docteur digle nan ko def Grand Yoff ngay dugg si benn grand place gis fa mille personnes kenn du sol masque kooku tamit il faut sa mooy loolu nga dugg marché gis ñoo xam man bu ma gisee ko sol masque sax damay tiit comprendre nga tant que loolu mi ngi fi parce que 2021 daf ñu fi fekk de mbas mi du fi jóge de ñun ñoo ko war a jëlee ñun nit ñi jële bi mooy nañu sol masque li kër docteur yi wax nañ koy def pour daw affaire yi ñu def ko buñ ko fi defee léegi mu jóge fi jaaral si koñ bi nga gis jaaral si koñ yi rek. du ñàkk technicien bi dina ci def yitte bi dina def benn nga gis trente person ñaar ñoo si takk masque gis nga kenn du si takk dara saway nañ ñaan yàlla ñun ñoo ko mun jëlee ñoo ko fi mun jëlee waaw. jërëjëf bëgg fàllu yàgg maar Euh, dafa am lu mu wax ne mbër mi du takk mystique du xawlal euh, mbër mi am la yore ak ñoomin seen du ma dellu ci historique bi ndax ma juum ma toog ak mbër mu ñu wax baabu saar champion nuyu naa la waaw fay naa la bu baax Babou Sarr de na bëreetul ban Babou Sarr la mën nga ñu koo tegtal ñi lay seetaan waaw ah, man bàyyi naa bora hmm. Babou Sarr bu dëkk Beylaw bi la woon waaw waaye léegi moom bëreetuma moom daan nga laal fii adrien Senghor laal naa ci tuuti de moom vraiment. Mm-hmm. daan nga fi daan ay mbër ba gañ ay drapeau. waaw gañe naa fi drapeau moom. ñaata drapeau. non benn drapeau laa gañe fi ak final. ak final ban mbër moo la gënoon sonal boo xam ne saa leen daje rek mu daan la. ah de moom daan na fi ñaari yoon moom. Malal daal daan na fi ñaari yoon. waaw Malick Ndiaye ñu ngi koy dafa ñëw ci biir séeréer si dafa mel ni gën leen a maîtriser affaire bi sonal leen lool. Ah, man de moom daan na fi ñaari yoon moom vraiment. man mbër moo nekkoon fii koo xam ne saa boo leen dajee rek wóor ne kii moom doo sax xalaat parce que da nga da jàpp yaa ko ah, man kay ma dalal moom dama yaakaar ne man daan rek moom may daanu waaw. fogole no seɗɗe eh, ki ki fuudanna lewto tv to ta ref we din genu saate nuun fo we refna diaspora fe mene bo amérique mene bo italie xaɗe o leyka den ah, ma simna den rek ɓegala den a paax to siare a den a paax ñanana den rek jam mo kiina refna rek yasam jama xij long ma loolu loolu leer na ah eh, damay dem ci mbay kalom mbay journaliste la ñoo bokk mais mbay danga nga da laale bu baax ci Adrien Senghor ñu ngi lay nuyu. Birame fay naa la bu baax maa ngi toog fii yëpp micro central Bouga Fallou Babou Sarr Adama Diouf Ibou Mbodj sa caméraman gaa yëpp maa leen di nuyu ku nekk. turam ak santam maa ngi nuyu président Arène mu Pango sebu Diouf ak yu mu àndal yëpp le secretaire général Pa Mody Senghor le vice-président Pa Mamadou Diouf Pa Ibrahima Faye Pa Omar Ndour ñoom yëpp maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam euh, mbas bi nekk ci dëkk bi ñu ngi ñaan yàlla mu dem ak jàmm parce que le 31 bi ñu ngi jógoon ci koor ñu ngi baalu ak yëpp ñu ngi baal itam ñu def ko at yu bëri mais biram daaw ñu ngi doon chef de l'état le set la waroon nekk le set bii la waroon nekk Kaolack la waroon nekk ci calendrier du CNG arrêt adressé woon bu mu wax xam naa ko bu baax fii ñu ngi teg 17 journée ci saison bi ren 17 journée muy commencé woon le 27 octobre arrêté le 8 mars ci am na maam am na microcentrale fu mu wax léegi foofu laa bëgg a ñëw parce que boo calculer ci calendrier bi lu 14 mars président de la république la defoon discours ñu arrêté le 15 jour ba sama waroon tekki